ku ko gëm dëgg bàyyi jaw ku mu yeegal nga jëm ca kaw nanu koy jàng bëgg ko alxuraanay samab xarit bi ma may dal gu mat tayit su ma koy dégg def bëreet sama xel mépp jublu ko dama koy jàngali xale di ko tafsir di toftale li mu làmboo di seddale la ngir ñu jàpp ko leer la gokku topp ko dem jub la gokku jàng ko xam mooy imam ju mag am nan ko jàng tey ko dagg naa ku jug di bañ bëgg naa ku jug di kañ waaju gëm ko faw mu añ yàlla la jox wane ko sant naa ci yàlla bu wér nan ci bokk jàpp ta raxas bu wér sunu tër nan ko jàng tey jëfe ko dama ko bëgg tafti ko sama xol dellu jublu ko mënuma mukk bàyyi ko sama doktora xamti ko waxi yàlla ju am xorom li mu làmboo di xam-xamam ku ko gëm yàlla may lanam nanu koy gëm tafaale ko dafa lottal nit ak jinne dafa làmboo yitam lu ne dafa semmal nag ak gone ku ci mos tuuti ko yàgg naa fajal ku ko gëm ragg mu am ak taneem gu mat gu ma xam yàlla moo ko wax nu se ولم تجدوا كاتبا ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤمن والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه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 Sadaqallaahu l-aziim. Maashaa Allaah. A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Innamaa sabiilu alaa llaziina yasta'zinuunaka wa hum aghniyaa. Raduu bi an yakuunuu ma'a l-khawaalif وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أن ورسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته inna allaha ghafurur rahim sadaqallahul azim a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين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 إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا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 وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي القزبين أحصى بما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم ربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض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 وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأتوا إلى الكهف ينصر لكم ربكم من رحمته yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa sadaqallahu al-azim a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله وزادهم الله وردا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi nuyu mbooleem ñi fi teew ñëpp rek kenn ku nekk turam ak santam. ginnaaw buñ jullee ci yonante bi sallallahu di nuyu mbooleem ñi fi teew ku nekk ci di wax ne kàddu yi dafa mënta ñàkk rek <clears throat> ndax temps bi dañoo xaw a xat lool te ñi ëpp ci xale yi tëreewuñ waaye. mënut a ñàkk nga yëkkati kàddu yoo xam ne kàddu yi sant lay doon ñi nga xam ne ñoo jàpp ci bis bi ba bis bi jag rawatina ñi nga xam ne mooy parents di yi ñu ngi leen di sant ñëpp kenn ku nekk ci tur ak santam ndax chaque jour ni ma koy waxee ci biir groupe bi rek bu fekkutoon parents de élèves yi daara ji lu am ba tey ñi taxaw fii di def conférence kon nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax di leen gërëm ndax bi ma wootee na damay def conférence damaa wax ni ma ko bëggee ñoom ñu fekkee ni ma ko bëggee kon amee na leen cant bu baax a baax a baax rawatina yaayi daara ak kuñ naan sëriñ Aliou Bousso di sunu mbokk du sunu lépp xam ne xéewal yi nekk fi yépp moo ko def keroog ba njëkkee wax la ne lépp di jëm ci bis bi danaa ko def ak ñeneen ñeneen ku ci mel ne yaayi daara xam na doom moo mokkal moom tamit tout le temps day sonn ci daara di dugg di indi lu mu am di ko indi ci daara yëpp yàlla def tey ji ba doomam di mokkal alxuraan moom ti ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax bu loolu jaalee tamit ñu ngi sant sama mbokk yi nga xam ne ñoo jógee Touba rawatina nag sëñ aafi mi nga xam ne ñëw na léegi bàyyi yitteem yëpp ñëw ci bis bi ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di gërëm sama waajur bu jigéen moom tamit ñëw na ànd ak mbokk yëpp rek depuis bët ki dem ba léegi kenn kenn desu daanaka ñëpp ñëw nañ soxna bint bu sa soxna jaara soxna aw ñëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax ak sëriñ Seexuna Say bu ma limee damay jur daanaka sant naa bu baax sama xol sedd na maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ak sëriñ Seexuna mi xam ne booba léegi moom tamit daanaka am na fi une ngi leen sant bu baax di sant nag ñi may jàppale ci daara ji rawatina yaa saydaay ak ustaas ndax bu doon man man dong la xale yi duñ toog fii duñ tari ndax yaa sayda yi jàmbaar lañ lool ak ustaas yi ko mel ne Abdou Fata Xaadim su ma limee damay juum yaa sayda yi nekk Kër Massa tamit bu loolu jaalee tamit ma sant samay soxna ndax ñoom tamit jàpp nañ ci liggéey bu baax a baax a baax baax ndax boo yoree ñaari daara xam nañ dafa métti waaye ñoom ñaar ñëpp lépp ne xam ne bu ma nekku ci daara yi ña ma koy defal muy soxna Kolle Dieng ak maam Dumbe kenn ki nekk nag mi Kër Massar kenn ki nekk Parcelles maa ngi sant bu baax ak sama goro yi nga xam ne fii boobu ba léegi bis bi mañ ko jàppee ba léegi kenn ku nekk yaa ngi indi teraanga yaa ngi wax yaa ngi ciy jàpp gis naa seen teewaay ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm su ma limee rek damaa juum rek ah? ak sëriñ daara xam ne teew nañ fi ñëpp rek ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax xam naa kàddu yi li des sëñ ji yi dana ko yeggale bu ko defee ñu wéyal liggéey bi ndax xale yi ñi tëreegul moo ëpp lool bu ko defee ñi bàyyi xel loolu ñëpp bëgg nañ nem somlu yàlla ñu tari bu ko defee ñi yeggale liggéey bi nem somlu yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah ahousu billahi min ma sha la hawla wala quwata illa billahi al ali azim asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi yëkkati suñu ci turu sëñ Mouhamadou Naar buso mi nga xam ne mooy jiite bopp sëriñ Aliou Bousso moom sëriñ Mbusoobe bokk ak sëñ Mbàkke Bousso mi nga xam ne moo meññi sëriñ Aliou Bousso mi tey di nuyu ca kàddoom ak kàddu njabootu sëñ Aliou Bousso gi yëpp waaye di nuyu itam ci kàddu mbooleem askanu kebe gi yépp ci subaag ba léegi mu ngi fi teew ci teewaane wu jekk wu rafet ànd ko suñu Aliou <coughs> sëriñ bi yabaloon na doom suñu Moustapha Bousso ñu waroon a ànd waaye yàlla dogal mu am ngànt kon buñ jëlee nuyoo bi teg ko ci loxol sëñ Aafiya mi nga xam ne moo toog fii ànd ak sëñ jataay bi ci loxaam moo ñu koo tegal ci loxol mbokk yépp sëriñ Seexuna Buso moom sëñ Omar teewoon na fi ci suba yàgg fi lool mboo mboolee mbokk yépp ñu leen di seedeel ne ci sëñ Aliou mi nga xam ne day suñu rakk ju baax di seede ne liggéey bu sell bi mu liggéey ay mbokkam yépp dañ cee maase kontaan am ci mbégte mu rëy ndax su fekkee da bokk ci Cheikh Al Khadim Serigne Touba bokk fi nga war a bokk saw doxin warta mel nenn nu dul nii muy yar ak jàng ak jàngale ak tege ci aw yoon suñu xol seet na guy bi ñëwee dégg xale yi macha allah ku déglu xam ne jàngal leen leen njàng mu set njàng mu sell su bokkee nag fi mbokk muy Sëriñ Tuubaa te ku nekk xam na ne liggéeyam bi yépp alxuraan la ku ne xam na ne sëriñ bi lim daj jóge fii ñu génne ko fi tubrankel ko ay at yu bari fee ca Gabon gisu fa kenn xamu fa kenn mboolem tubranke bu nekk dañ na ko fa mboolem luy tiis ak metit dañ na ko waaye yàlla fay ko xam ne ku xool gis ku làmb daj ku déglu dégg muy loo xam ne amatul naatale waaye Sëriñ moomu liggéey bu rëy boobu ba mu ko liggéeyee ba noppi ca ngor ga te baax ga ba ko si borom fayee danee sërë ci bii ndaw ñi na nekk waaye li ci amal solo mooy liggéey bu rëy boobu Sëñ Tuubaa liggéey dafa tudd ne dafa am ay àndandoo yu àndandoo rafiqi kitaabullah wal mustafa nabi wa ashaabuhu fil bahri hiina awdu kitaabullah boobu mooy téerub yàlla bi la àndaloon liggéey li mu liggéey kon képp ku bokk ci ak njabootam boo taxawee jataay bu mel nii xol yépp dana sedd te sëriñ bi wax ne képp koo xam ne bëgg naa jege yàlla suñu borom te mboolem ab jullit li muy xante woo mooy jege yàlla ku ko bëgg na ngay jàng alxuraan te bañ ko fàtte kon ñaari tomb yooyu day mel ne sëñ Aliou dégg na ko bu baax a baax ndax sëriñ bi musta yamale mukk koo xamee na ab dëndam alxuraan néeg ci rawatina mu koy jàngal ay xale di leen yar kon na mbooloo mépp maa si xam ne mbooleem suñu aliwu aw fameem askanam ñépp seen xol sedd ci moom guyu ñoo koy ñaanal yàlla suñu borom liggéey bu màgg bii liggéey bu tedd bii nga xam ne amul lu gën a rëy ci àdduna suñu borom dafa ko ci ndam rawatina nag mu jël barab bii ndax alxuraan fu gën a baaxe fa gën a jekke fa la gën a yelle fa gën a jaaroo alxuraan dara dara mënu ko fay kon nag ñoo leen di seedeel ne sëriñ Moustapha sëriñ Aliou ay mbokkam sant nañ ko gërëm nañ ko aw yoonam rafet na Euh, am na yitte te itam déggal na ay magam kon ñoo koy sant di ko gërëm di ko ñaan yàlla defal ko tawfeex bu baax di euh, jot liwaale kàddu sëñ Moustapha Bousso mi nga xam ne moo nekk xalifa di magam soxna Bintu nekk ne ca ak mboolem fan bi yëpp bu baax gërëm nañ ko ñoo ngi jégalu bu baax xam naa kàddu yi mënoon naa gën a waaye programme bi mel ne ne xaw naa bari lool kàddu yi nag cant moom loo ci wax rek mu daal di doy wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. nuyu yéen leen siyaare bu baax di leen ndokkeel bu baax a baax nuyoo bi siyaare bi ndokkeel bi ñu ci mi nga xam ne suñu jarbaat la suñu rakk la suñu doomu nijaay la suñu lépp la nekk jëmm joo xam ne dëgg yàlla ku suñu borom baaxee nga am xol bu laab liggéeyal suñu borom ci diine ji loo xam ne moom ñun day sant suñu borom baax ci moom ndax euh, bokk na fi war a bokk waaye xam na boppam dugg ci business mbaa leen loo xam ne luñ koy xeebee la mbaa luñ koy yabee la ñu ñaanal ko yàlla yàlla gën ko dëgëral sa doole ko te kàttanal ko te doole ko defal ndam baax a baax a baax ci liggéey bi ba fa nga ko bëgg a àggale moo am ci loo kaw njortam baax a baax di jaajël fa baax a baax waajur yi nga xam ne ñoo amul doy ci moom ak wóolu ci moom ak yaakaar ci ñoom ba tax ñu jël seen doom dénk ko kenn ku ne xam ne ne doom moom meññetu xol la daa sax ci biir xol waaye ngat meñet moom boo bëggee mu am amal la njariñ da koy suuxat meññet saa soo xamee ne bëgg nga mu amal njariñ na koy suuxat boo ko suuxatee te na ko na nga ko war a suuxatee ak fa nga ko war a suuxatee te buñ ko waxee mooy la nga xam ne suñu borom noonu la gën a gërëmloo ci ku suuxate noonu boo ko defee rek doo ko rëccu àdduna doo ko rëccu àllaaxira kon waajur yi nañ doole santaat suñu boroom bu baax a baax ndax alxuraan li ci nekk ci ay ngëneel ak i yiw ak i leer ak i xéwal ak i teraanga yàlla rek a ko xam rawatina nag li aju ci wàllu dundub daara yi dundub daara moom ku yoru daara rek mën ngaa bañ a xam jafe-jafe yi ci nekk ku yoru daara mën ngaa bañ a xam coono yi ku yorut daara itam mën ngaa bañ xam diis diis yi ci nekk waaye bu ñëpp jàppee rek mu woyof te jàppandi dana gën a yomb liggéey ba dana ko gën a jàppandal dana tax itam xale yi seen nekkin gën a yomb gën a jàppandi te itam seenum njàng itam gën a mucc ayib kon waajur yi kenn ku ne rek na gën a góorgóorwaat bu baax a baax gën a téyewaat gën a jàppaat gën a jàppalewaat du ma ko yemale sax ci waajur yi kese waaye maa ngi koy lancé mboolem ku lislaam ñor mboolem ku diine ñor mboolem ku alxuraanu ñor maa ngi day wax ne la alxuraan na ko féete fenn boo ko féetewut fenn bu ëllëgee dana xaw a doy lool soppe am na solo lool wóllëre am na solo lool xarit am na solo lool waaye ki gën a mën a sopp mata gën a mën a jàppante kóllëre mata gën a jàppante xarit mooy alxuraanu karim yaakaar naa seexul xadim yaa kitaabal yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili yooyu boo xoolee moom de moo xam alxuraan mooy kan moo tax mu jàppan ko soppeem jàppan ko xaritam jàppan ko léppam loolu nag lépp loo xam ne mooy tax liggéey bi gën a yomb gën a jàppandi gën a yéwén gën a jekk gën a jekk gën rafet yow nga jàpp ci ak ak koo mën a doon ak foo mën a nekk loolu maa ngi la ci woo baax nga gën cee jàpp te xam ne itam liggéey bi day liggéey boo xam ne liggéey bi ñëpp la ñëppay jàpp bu ñëpp jàppee rek mu woyof te jàppandi toog di jàngale rek daa diis gan metti lool bari ay mbir mbiraan yu bari yu nekk yoo xam ne xale boo xam ne xamu ko dara mënu ko dara xel mi daanaka fo rek moo ca nekk nga bëgg koo yar bëgg koo yor bëgg koo jàngal bëgg a def ci moom yu baree bari loola ab liggéey dëgg la boo xam ne rek bu ci boolee diis diisaayu daara ja ak jamono ni mu tëddee waajur yi itam xaw a seetaan tuuti ci wet ñeen nañu laa wax du ñëpp waaye ña nga xam ne xëy na ñoo ñoo desee jàpp